Reubeuss mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. boo jëlee ci kër papa ji dina yor téléphone yaay yor téléphone doom yi kenn ku nekk te ñëpp bëgg nañu connecté wu. li ñuy dépensé ci jour ci internet moo ëpp li ñuy dépensé ci jour pour lekk ci biir kër gi. te tey opérateur de téléphonie yi dañuy surfacturé ici au Sénégal li ñuy jaayee mbir mi dafa ëpp. il faut état am sañ-sañ intervenir ne leen nañu wàññiku yi ba pare ñu wàññi fiscalité bi ci nek da loolu am nañu sañ-sañ bi bu ñu demee assemblée nationale li nak boko défé so soo suba nañ taxaw né way limuy wax ay utopie la parce que état bi fan lay jëlé ressources état bi dafa am lu ñuy wax ay niche fiscale yo xamné ne évaluation bu ñu def moy Sénégal dina ci ñàkk 800 milliards at bu nekk te 800 milliards yoyu

bokk na ci compétence u assemblée nationale te ñun yërëm nañu sénégalais yi sénégalais yi sonn nañ dañu naan ndaw ñu sonn nañu waaye fu ndaw sonnee rek yaayam sonn na baayam sonn na kon sénégalais yëpp a sonn am nañu sañ-sañ nag bokk na ci li mun a wàññi le coût de la vie waaye waaye Sénégal am 718 kilomètres de côte kenn ëpp ñu jën jën gi yëpp jaay nañ ko accord yi ñu signé ak Union européenne signé ko ak Chine signé ko keneen a keneen.

2024 nous ñu jël réew mi yor exécutif yor législatif daal définitivement may dem leen récupérer leen massivement une bonne intercoalition te mi fonctionner correctement Nous avons ñu jaar yëpp gis nañ ni candidat ak ñu ngi jàppante la main dans la main ça veut dire que militant Wallu ak militant Yewwi dinañ jàppante seen i sympathisants dañ jàppante seen i électeurs nañu voté te bi ñu defee suñuy statistique département yi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar gagné na ko à plus de cinquante pour cent dañ leen di compté ci ëpp boo jëlee score Yewwi ak score Wallu am nañu plus cinquante pour cent kon tekki na ni élection yi war nañ koo mën a gagné moo tax bu ngeen bi jógee amatul noppalu ñun niñ koy defee bëgguñu rek ñu ne su dee leader yi ñëw lañ la gars yi di mobiliser kenn ku nekk ci yéen na ko def ci boppam porte à porte porte à kenn ku nekk bu mu xaar bu leen xaar docteur Dieng bu leen xaar beneen candidat ku nekk da dem fekk nit ñi fi ñu nekk ndax ñun ñoo nekk ci xolu sénégalais yi ëpp. dem leen fekk leen waxtaan leen expliqué leen naka la war a wotee wot bi yomb na ndax ñoom li ñu bëggoon def pour yàqal ñu moo ñu gën a yombalal juróom-ñetti bulletin la benn bulletin moo ci amul nga soo fa newoon da Sonko mi ngi sol costume bu bu ñuul bi daal nii léegi da ngeen leen daan mooy bulletin bi amul photo bi loolu benn la mooy bu yeewi bu dee nag fa nga xam ne foofu la. wàllu war a jiite nee leen mooy bulletin bi nga xam ne poto président Ablaye Wade moo fa nekk loolu yomb na kon élection bii dañ koo war a gagné dañ koy gagné est pour ñu gagné ko. élection yi mën na fenqal Sénégal ay fitna mag ñi laay waxal ndax mag ñi koo ci dajal dina la ñaanal dina la wax cofeelal ci yow waaye dina wax jàmm waxaat jàmm waxaat jàmm. jàmm jooju nag bëgg nañ ko mooy ñun ñëpp dëppoo nañ ci Macky Sall bu fi buggee forcer troisième mandat jeunesse bi du ko nangu est-ce que ñun d'accord nañ ci loolu am na nekk ñoo xam ne mënuñu ñoo bañ a yombalal ñu bañ a yegg ci loolu mooy 31 juillet Macky Sall su ñàkkee assemblée nationale wax jooju jeex na wax dëgg yàlla léeg-léeg yàlla dañuy yombalal mbir mi ñu ñu ñëpp compliqué ko. sénégalais yëpp ñi ànd ak moom sax la ca ëpp jàpp nañ ne waru def troisième mandat du wax sax troisième mandat waru déposer troisième candidature waaye Sénégal yëpp nag amul kenn koo xam ne tey am na sikki sàkk ni moom loolu la bëgg te mu jaral ko rey ay nit jaral ko dóor nit ñi ay bal jaral ko tëj nit ñi kaso jaral ko xot ci worma nit ñi pour mu am troisième mandat boobu yàlla nag bu ñu mayee ci loolu ñu dëgmal diggante fii ak ñuy egg foofu mu dëkk mu dugal ci diggante bi benn élection boo xam ne mun na régler problème yi waaye waaye waaye Sénégalais yi dañu bëgg suñu bopp mag ñi laay gën a waxal nag ndax ndaw ñi moom amatuma ci lu man ndaw ñi lenn mooy sama problème mooy dama mujj dama mës a gëm ni 65 pour cent de jeunes yi nekk ci Sénégal bu doon ñoom ñëpp bindu nañu ñoom ñëpp génn voté. premier jour la la la élection bi di jeex. Benno Bokk yakar daanaka élection bi ñuy génn mo gagné commune yépp lolu mour bokk na ci l'un des rares département bu am loolu fatik sax amu ko fa ndax fatik ñun gagné nañ département Mbour laa ko gis ak Matam Xada l'un des rares département bo xam maki Macky a eu 100

léegi nag wor dafa am possibilité rattrapé wu dafa am possibilité dabu moy élection législative bi wax dëgg yàlla suñuy lim département yo xamné tourner lañu la page de Macky Sall ubbi une nouvelle ère pour le Sénégal ñu ne Mbour mu nga ci loowu département yi wala sax ci premier la bokk lool moy enjeu élection bi. parce que jàngoro Sénégal ñëpp xam nañ ko gis ngeen fi ñu jaar yëpp moo tax concert casserole bi dafa amoon ñaari signification signification bu njëkk bi mooy def bruit pour wane suñu mécontentement parce que moyen d'expression la comme beneen moo tax dañu jaar yëpp jigéen ñi dañoo génn yor ay jin yor ay bool yor ay ay ay gudd ci moir dëpp ko wan ñi ni ñoom sonn nañu moo tax bu ñu demee assemblée nationale su ngeen wóoloo Yewwi Askan Wi ngeen may ma tuuti ma def ma cof benn aspect suñu programme te foofu laa yem parce que fu ñu dem dinañ génne benn aspect parce que waa ji dafa mënul xam-xam bi dafa des ba pare mu nekk au service des tubaab jaamu intérêt tubaab yi la jiital ci lan mooy yitte Sénégalais yi loolu nag moo tax dund bi métti ci Sénégal

150 milliards ci andi seen société imposé ma ko lu milliards ñu facturé ma ko milliards ba pare xaalis bi dellu ci ñoom ci seen entreprise te duñ ci fay dërëm ci bu lu mel priorité Sénégalais yi bëgg nañu lu baax bëgg nañu faju bëgg école yu baax bëgg nañu am ci priorité Sénégal faw mu obligé ñëw waxtaan ak ñun naka lañuy def pour wañi dund bi mo wax len ko tay li mom xamuko mënuko parce que xam-xamam égul fofu bo buggee wañi dund bi li ngay def moy li nga xamne moy bi ñu tek ci dund bi nga jël ay produits yo xamne produits de première nécessité la c'est des produits de base yo xamne sénégalais dañ ko soxla ceeb bi diwlin bi ak yeneen ak yeneen soo ko mënul exonérer da nga fay def li ñuy wax une fiscalité allégée da ngay wàññi impôt bi ñu ciy teg est-ce que xam ngeen li tax carburant bi yokk li tax carburant bi yokk mooy soo jëlee tey un litre essence lu mat 60 pour cent bi ay taxes la yoo xam ne ci état bi la jëm su ñu nee 700 francs lay jar les cent francs ay taxes la yuy dem ci état bi bu état bi nangu woon wàññi ay taxam tuuti rek. D'efco 200 francs l'individu bi à 500 francs loolu mooy parce que la fiscalité impôt compétence su assemblée nationale la du compétence la constitution Sénégal wax moo man am sañ-sañ ne su assemblée di nga dund bi dund bi nga sénégalais mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.